Ibrahima Gningue doon maître coranique kii di Khadim Seye moom mi nga xamante ne ni moo daal di gagné grand prix Sénico ci huitième édition bi. 2019 la dëgg sama la dugg sama loxo. ci la ma ko bàyyam joxoon. Euh, ma daal di démarrer ak moom daal di tàmbale ak moom njàng mi ci daara ji. mu nekk xale boo xam ne nii depuis li mu nekk sama loxo lépp yar laa xam ci ak teggin mooy ni ngeen ko gisee nii ci dal gi nii noonu laa ko mos a xamee. mboolem xale yi mos jaar sama loxo yëpp. gisuma ko ci ak yar bu ñu sukkandikoo ci moom mi le Xaadim Sey doon na xale bu yaru bu nangoo jàng bëgg lool alxuraanu karim moo tax ba jàpp na ni li ni mel nekkul benn yoon lu ko bett. xamoon naa itam ne lii cër bii nii eh, yàgg yàgg dana ko mos a am. wóolu woon naa ko bu baax a baax incha allah bi muy ñëw itam ragaloon naa ne lii dina ko dana dana ko ci tax. amoon nga ci yaakaar amoon naa ci yaakaar ngir gën a mën a ñaax xale yi ñu dem jàngi alxuraan seniko di amal li ni mel ay at a ngi nii mu bokk ci lu ñu bëri di rafetlu. tey gis naa ay kilifa yoo xam ne tey gis naa seen rongoñ gis naa ay soxna yoo xam ne ay ay kilifa lañ ñoom it gis naa seen i rongoñ xale yi jooy nañu mag ñi jooy nañu te loolu yëpp dara waralu ko loolu alxuraan kon nañu sant yàlla julli ci yonent bi te xiir suñu njaboot gi tamit ñu dugal leen ci daara alxuraan yi. waaw taxawu taxawaay bu mel nii yombul jafeñ na waaye alhamdulilahi rabbil bañ ci yàlla boole. yàlla yàlla boole nangul. di di ko ñaanal li nga xam ne moom lay def at mu jot muy gën di ma ko gën man di soññ yi waajur yi jullit ñi ñoo xam ne seen doom yi leen yàlla jox mënuñoo def ci ñoom wala ñu fàggul leen lu gën alxuraan. parrain wu huitième édition bi doon Serigne Saliou Mbacké nekk doom ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké concours bi amoon ci ñaari niveau niveau national bi tolloon ci cinquante candidats Khadim Sey daal di ko jël am lu tolloo vingt millions de francs CFA. اهدنا الصراط المستقيم